asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa diaspora ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax yéen mbokki internet yi di seetaan Mbedd Vision ñu ñëwoon seen beneen numéro Dóor waar émission waar wi doon tuddee ñu ñëwoon tey seet si benn xale bu am jom am ngor ñu koy wax Ndeye Maguette moom nag mi ngi yëngu si wàllu jaay crème nde Maguette ñu ngi lay nuyu. si di delloo ziar bu baax a baax a baax tout d'abord ñu ngi nuyu mbokku internet yu euh, seen. Mbedd Vision seen Mbedd di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar di kontaan tey ci seet si bi ngeen ma seet si fas yéene def ak man benn émission ma leen la waa leen nuyu bu baax a baax nuyu mbokku internet yu bu baax a baax. mais kan mooy Ndeye Maguette. waaw Ndeye Maguette boo ko laajte naa ci sawar wax la kuy Ndeye Maguette. ndax Ndeye Maguette benn xale la boo xam ne age de 30 li ma juddoo ba léegi nag euh, liggéey laa xam. Mhm. surtout ci lii ma nekk nii. avant may commencé sax nag euh, dama war a gërëm sama papa te yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin fa mu jëm gënal ko fa mu jóge moo ko euh, képp ku fa fekk ak ko fa fekk. Ndeye Maguette la xale bu nangoo liggéey xale bu gëm li muy def xale bu gëm boppam xale bu soxlawul daraay góor. que lu ma sama doole mayul rek man bëgguma kooku mooy Ndeye Maguette. waaw loolu am na solo bu baax a baax a baax a baax a baax yow dañ lay laaj rek yow la moo tax nga choisir dugg si métier jaay crème bi euh, yàlla dafa dogal nag euh, Ndeye Maguette bi bi nekk xale ba tey dafa bëggoon jaay man damaa bëggoon jaay parce que dama doon jaayantu man lu ma gis ni war na maa mën a xaar sax depuis nag ma génn école ba tey maa ngi fortaatu di jaayantu sama yaay amoon table fii ci tali bi di jaay ay njaayam syndicat ay madre ay mango ay affaire yooyu noonu uh-huh. su mësaan di dem dañu daan bàyyi ci table bi ñun ñu jaay uh-huh. foofu lañ commencé tàmmoon jaay doon dañ doon jàng école mais dañ daan jàng ba suñu wàccul suñu wàccee euh, ñooy toog gont suñu jàngiwul ñooy jaay uh-huh. ñun foofu lañ tàmmee woon jaay liñ naan nit loo gëm te nangu ko rek mu jariñ la man lii may dama koo gëm te doorewuma won fi dama doon bindaanu mhm. pour ñu xamal la y pas de sous métier mhm. benn liggéey jotta xép mhm. man dama nan liggéey liggéeyu kër di fayé ko 15000 francs par fin du mois yalla dogal sama magu jigéen boo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ma sama taawu yaay mo amone place euh buntu Pikine am fa ay client di jaay glace ci li tax ma ñëw ci métier bi la expliquer ndax glace la doon jaay euh bu muy dem Gambie comme moom euh, famille jëkkëram yëpp Gambie lañ nekkee. Ah. bi muy dem Gambie euh, boobu arrêté sama jàng bi. Mhm. mu jëlee ma fii ne ma kaay ma yóbbu la fi may jaayee nga remplacé ma di ma jaayal ba ma ñëw. Ah. su ma xëyee damay quitté fii 8h dem këram arrangé ko këram takkal ko glace. léegi yow ñaata temps nga def si jaay bi. Euh, parce que 10 ans nag. 10 mhm. ans su ko ëppul ndax parce que 2010 ba tey maa ngi jaay crème. 2010 ah, ba tey maa ngi jaay crème. te xébu mako yit te yakarna naa teral na bi mi dem ba mak liggéeyam makoy jaay glace suma arranger ko kërëm takal ka glace wut saret mhm. ñi ma xam ñep xam nañ ma ci Pikine Icotaf bi fi laa taxaw wut saret yàpp ci glace bi mu ko ak samay sœur and ak saretier bi ñu and place bu ma taxaw daf may xaar ma livrer fa glace paré ma paree wat anké sa xaas bi suma ñëw dama jël xaas bi temps def ko ci ben euh, pot dénk ko borom boutique bi mhm. su ñëwee su ma jaayee ba ñëw jël xaaf ci pot dénk ko borom bitig bi su ñëwee nag ma réglé ak moom li ma réglé ak moom génnee ko ne ko lii laa la jaayee lii laa jëndee mbuus lii laa def nii ba euh, jour bi nga xamante ne mooy dernier jour bi nga xam ne war a ñëw pour continuer njaayam yàlla dogal na nit ki foo nekk jënd ak jaayee rek di nga am sa morom jigéen ñoo séqalanteel yàlla dogal maam fa ñaari xarit yu baax mami saar ak mami ak euh, Maguette maa ngi leen nuyu au passage sama xarit yu baax yooyu ñoo ma xamal na waroo mën a bàyyi fii mën nga ñëw di jaay si man leen man amul ma jaay fii parce que man euh, sama mag bi laa doon indil glace di ko jaayal mhm. finalement mu ngi ñëw pour àggale jaayam amatuma lu ma mën a jaay ma ñëwoo nga jaay jus léegi ah. léegi yan jafe-jafe ngay jànkoonteeg si si jaay bi parce que am na ñoo xamante ne dañoo sa mbox dañuy leb te duñ fay bor est-ce que yooyu dina la si dal waa dina dina ma dal dina ma dal ndax euh, am na ñoo xam ne dañ leb te duñ la fay mais comme yaa bëgg a ut rek yow yaay naxanteeg say client. waaw mais yow comme comme noonu bu la dalee yow nan ngay lan moo doon sa réaction nan ngay nan ngay réagir ak ñoom bu la lebee di la dawloo. waa man yàlla dogal na ni alal duma boole kenn. sama xaalis duma boole kenn man noonu laa mel. man lu ma yor sama loxo bi nit ñoo ko moom. man mën naa laa jaay tey nga leb doo fay suba ma lebalaat la. bu ginnaaw suba ma lebalaat la man amu problème mu xaalis te ñi ma koy sëqante di ko jëflante ñoom xam nañ ne nday màgget amu problème boobu noonu parce que li ma gën a ñor mooy nit bi jëflante naa ak yow ba xamante ak yow bëggatuma sama xamel di yàqu ci ay cent francs parce que man njaayum cent francs laay jaay njaayum fukki dërëm te nit bi moo ma gënal fuuf fu fu fukki dërëm yi may am wala cent francs yi may am nit bi moo ma ko gënal te koo liggéeyanteel 10 ans bu la amee le 100 wala mu amee le 200 kooku soo ko bàyyee doo nit toog soo ko bàyyee doo nit man mention spéciale ak samay client bu seddee damay jaay comme ni may jaay tàngaay maintenant bu la ñaar fukki bu la ñaar fukki nit amalee ku nekk cent franc fay ñu la deux la de deux mille par jour dara la de waaw dara la mais yàlla fa dogal ni ñaar fukki nit duñu ma amee loolu par jour ndax ki nga lebal tey fayu la bu subaa boo ñëwee da lay fay kon day remplacer ki nga xamante ne jëloon te fayut man noonu laay liggéeyanteeg ñoom mhm. samay client kenn ñoom surtout waa Paku Lambaay ñoo ma doole ba ma agsi fi ma toll bawal bawal yooyu nga xamante ni lu ñu liggéey ñu ko góor ak jigéen daan doole la ñuy def voilà damaa bëgg a ñëw foofu noonu yow yow jaay bi nu muy demee nan lay deme dangay ngay rester sur place wala da ngay jël sa soo bi dem di jaay si terrain bi wala nu muy deme waa yàlla dafa dogal nag man du ma rester sur place mm-hmm. man sama wërsëg nee ko ci toog man jug dem laa am mm-hmm. man su ma xëyee damay chargé sama glacière chargé sama sio ba mu fees dama koy gàddoondoo nii ñi ma xam xam nañ ma bu baax. Mhm. ñaari siwo laa yor bii glacière bi siwo. Mhm. su ma xëyee am naa nag ay client dama koy toppante étape par étape. Mhm. damay wari koñ am naa fa ay client su ma poussé tuuti am naa fa ay client noonu laa ko toppantee di koy jaay di koy jaay mais nag faraluma di lem di jaay koo xam ne xaw ma ko. ma ñi may jaay ñëpp soit que dama leen di xam soit que mu nekk nit boo xam ne dama dox daje ak yow li may jaay nga bëgg ko ma jaay la ko. mais du ma faral di war dem di jaay ci ay nit ñoo xam ni xaw ma leen yàlla dogal na ne dul naa ba am naa sama clients yoo xamante ni teel naa leen sama bopp te lu mu métti métti métti dañ may xaar kon soxlaatuma di wër dem di jaay ku ma xamul ndax su ma xëyee étape par étape lay toppanteeg euh, sama liggéey ba keroog may retourné waat dinaa fi xëyee nag 10 heures mais maa ngi fi ay 19 heures wala 18 loolu am na solo bu baax a baax a baax mais beneen question bi mooy comme comme yow da ngay wër di di nga dajé ñi nga xamanteni xama dañu sëmba xam nga yow kula xol xamni xam ne yaa ngi mën a neexul xama gaay duñ la déma jël dem la draage pour jël la ci laqul wa laqatu wala ci si jaay gi ngay jaay wala aha da fay am en général da nga gis la lu bari bare mhm. bari waaye nit ki toujours rek da ngay am gëm-gëm dëgg la da ngay am gëm-gëm gis nga xalé goor yi nga gis ni ni ni mhm. kuñ ci may sa ñaar fuk tay may la ko suba bu gën suba ñaan la leneen mhm. man dama gëm liggéey amat sama bop barki Serigne Babacar soxla ma ay góor lu ma yor maa ko moom bu laajte lu ma yor maa ko moom sant naa yàlla bu baax sant sama yaay ji nga te ne su ma yoree woon may taxawaalu wala may wadi ooyo ci mbedd yi du ma am dara. waaye moo ma yoree liggéey moo ma jàngal ñaq tedd kenn bu moom ñang baalo yal na yàlla guddal faram yàlla may la wér bu baax a léegi yow diggante bi nga commencé léegi def nga si 10 ans maam lan nga si réalisé gum. ah macha allah bari na. ndax koo xam ne bi mu juddoo ba fi mu xamante yoon ne woon am 100 francs yi mu la boppam baa lu ma amaan sama mag ñu ma ko daan dimbal ndax sama yaay boo waxee mu ne mooy sama caat di leen ko jàppale kon su ma demee ba nga xamante ni sama wërsëg ñu bari xaj nañ ci tey sama biir famille kon damay dellu sant yàlla yàlla bu baax a baax dama ko sant bu baax a baax a baax ndax euh, tey yàlla dogal ni fii sama place maa ko moom du lu ma luwee et eh, pourtant sama ëtt laa daan jël sama frigo teg ko sama biir kër da liggéey te glace laa njëkk doon toj di ko liggéeyee yàlla wërsëgal ma ñuy dem di dem di dem ba ma am weccet ci laa jënd frigo bi fukki junni ak ñett keroog bu ma koy jënd sax matalu ma sama yaay moom motalil ma jënd frigo bi may fortaatu di fortaatu di fortaatu yàlla dama sutural ma dem tey ba mën a jënd frigo bu mag bii yàlla dogal ma mën a ubbi sama petit entreprise laa ko mën tuddee ndax wañu boo gis ci benn day commencé. ubbi sama petit entreprise bi yëpp. su ma xëyee fi laay nekk di liggéey sama liggéey su ma wàccee fi laay nekk di liggéey sama liggéey ama fréquentation dew ma fenn lu dul sama liggéey sama yaay sama kër. Mhm. ama feneen fu ma jam bàyyi noonu ma ci réagir ndax yàlla dogal nañu fii fu yëre baaxee maa ngi koy sol fu or baaxee maa ngi koy takk. sumay liggey nak damay liggey mais fu sama morom di genné ma sha allah kuma xol xool dama xolat xam carrément liggey rek ay dëkk li ci réagir bari na té amna ci lu bari ma sha allah sant Yalla bu baax. waaw amna solo bu baaxa baaxa baax légui dañuy ñëw ci ce monde de la fin xam nga ñëwoon ci tay ci digeen tey ku xol place bi rek xam nga di nga xam ki tay ji ni soxna su gëm bopam la mom mam mën naa ni dafa dafa juddo dafa juddo jom magge ngor. waaw xale bu gëm boppam loolu tax ñu gën a sawar sax si moom waaw léegi bu ko defee nag xam nga lu duuf si nag bi xaju si cin li te nga rek temps benn xoj te wayaan xaju fi su ko defee rek dañ lay bàyyi nga jox sa mot de la fin may remercier gars yi ma àndal muy bimbal mi nekkoon si caméra bi Seydina Mandione nekk si bi sans seen mbokk Seydou Nouré ni moo nekkoon si waxukaay bi ñu bàyyi nga tàggu yi waaw mooy delloo sant ak ziar ak gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax wax naa ko sama biir wax commencement bi maa ngi sant samay ñaari waajur bu baax a baax a baax a baax di ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla ko yàlla yërëm ta xare ko ko fa fekk ak mu fekkul di ñaanal yaay fi mu tëdd yàlla ko fi yàlla yëkkati ci jàmm yàlla may ko wér ak tan bu baax a baax a baax nee naa la kenn du moom ñang baalu demba moo sonnu jëm moo sonnu tey lu ñu am ni nga koy sant di ko gërëmee taxam te ne muñu yàqu rek ñu yàqu du nuyu sama famille ñëpp bàyyuma kenn surtout particulier à sama grand frère boo xam ne mooy sama taaw yaay baaba ko nga xamanteni ni moom mooy duto ci bir famille da pikir ñi ñii mu jox len dom ñii mu entrer len gey ñoro mom lu lu dund doyut moom mooy mag bi jappale ay rakam moy mag bi tie ay rakam mom mag bi fonko ay rakam moy mag bi nga xamanteni ko bo bo sen ko saxol sedd nuy euh, na sama fagne bu baakha baax waye nak lu lëg lekkee nako ko choy coy spécial a sama nijaay jo xamanteni sama rakku yaay la seust sama yaay rek te rëkku ko muy muñang kooku lu ma am dama ko koy sante di ko gërëmee di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla bàyyi ki njabootam ak ay ak ay soxnaan ndax mënoon naa liggéey ñaar fukk yu ma am su ma ko ko joxee mu lekk ko te mujj fenn waaye sama ne yaay chaque jour li may digal mooy booy liggéey dangay xam ne ngay liggéey bul du yàq koo am koo tane dimbali ko ñam baalo yàlla yàlla guddal sa fan ma ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax a baax billaahi lépp loo yóotu ñaan bala yàlla na eh, eh, la ko yàlla jotal ci kattan yàlla suñu borom waaw oh, bu ko defee rek kon kii ne dafay doog a ñëw xam nga dañ koy dañ koy bàyyi mu mu wax si ndey màgget te te dëkkandoo moom xam nga comme dëkkandoo ndey màgget waaw salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum yéen ñi may seetaan salaamaaleykum yéen ñi may bàyyi xel kii ni invité nag dafa nekk borom jom nekk jigéen ju jàmbaar di daan doole di def ñàkk tedd rek la dundee barki Seydina Muhammad Ndeye Maguette nag li ma mën a wax si moom bari na bëriwul ndax dafa nekk jigéen joo xamante ni takk ndigam li ne liggéey rek la gëm fas jom jàppale yaayam lu mu am dimbali yaayam lu mu am lu mu tuuti tuuti tuuti dina ne carrément xam na yóbbu sama yaay li lekkul dara bàyyi ay waajuram papam avant muy dugg si biir suuf da kaw gërëm ñaanal ko moo waral lii la naan barke bàyyi liggéey nday moo ko moo ko topp waaye Ndeye màgget nag li may wax si moom maa ngi koy ñaanal yàlla gudd fan yàlla may ko wér musal ko ci cat ak seytaane lii nag dal na xel koo xamante ni ba nga nekkee xale ba tey ak ba li ngay raamee liggéey nga xam doxoo si daray caaxaan wëriwoo góor kenn seeti wala kenn wëri wala loo wax ñu ne liggéey rek nga nga gëm tamit yàlla suñu borom bi nga xamante ni moo bind jaam sàq sàq ñëpp ku si nekk mu mu am lu mu la jagleel yàlla lii la la jagleel liggéey bu la neexoon di wëri góor ñi ñu lay wër ci eh, si eh, si kii si programme yi waaye defoo ko programme bu amee sax na màgget xoole seize lay jël toog seen bundu kër di takk kereem di jaay nga war a xam ni kii rek jàmbaar la kii rek bañkat la barki Seydina Mohamed maa ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ñaanal ko wér ñaanal ko wérle lii laa mënoon am lii laa doon wax si moom ndax man dëkkandoom laa ñu suñ ñaari kër ñoo bokk suñ ñaari suñ ñaari kër yi ñoo jàkkaarloo ma xam si moom jikko ju rafet xam si moom lu baax xam si moom loo xamante ni ku ko xool bëgg ko jongoma kum dab da ngay sonn waaye moom koo ko xoolee xam ni sonnul de di tay di di liggéey di jënd ay oram di liggéey di jënd sëfa di liggéey di jënd ay yére baax programme foo ko fekk barki Seydina xam ne maa ngi dalay daaneel lan moo ko may liggéey liggéey ko may barki alxuraanu karim bu fekkoon day wëri Samba wëri Demba boobaa da ngay da ngay da ngay mel ginaaru coxrong <laughs> laa moon